société nationale d'électricité bu Sénégal Sénélec moo leen tas na gouvernement bi di waaj a taxawal bu bees mooy xibaar bi yéenekaay yu bari xëy yeggeeñu bokk ci ñoom réew mi quotidien mi ñu ne gannaaw ba tasee gouvernement bi fi newoon Macky Sall taxawal na beneen bu bees liste ba yéenekaay bi ne daanaka nuppi na booba lépp liste nag Amadou Ba mooy des ca bopp ba buñ sukkandikoo ci Sud Quotidien mi ñu ne Amadou Ba mooy wéy di doxal gannaaw bi Macky tasee gouvernement bi taxawal beneen bu bees gouvernement bu bees booba moo yitteel le quotidien mi ne Macky Sall daf caa nar a dooleel candidat bi di Amadou Ba la tribune dëggal ko ne Amadou Ba kay mooy wéy di doxal fii ak élection présidentielle yi te itam gouvernement bi ñu ko nar a taxawal mooy gouvernement de campagne électorale maanaam ñu koy gunge ci wuti ndam li ci élection bi ñu dëgmal l'observateur it noona la gisee niki bés bi le jour mi xaar équipe de combat présidentielle maanaam gouvernement boo xam ne a bés bi danañu fësal listub gouvernement bu bees bi Amadou Ba moom falaat nañu ko ci boppale boobale gouvernement te bii di ñëw enquête nee na ay coppite yu baree bari dana ci am bu dul ne sax lépp la ñuy soppi vox populi ne bu weesoo ay coppite ak dooleel gu Macky Sall dooleel ama du Ba mbetteel yu baree bari itam dina am ci biléb gouvernement waaye vox populi ne mbetteel du gën a mag gi awakaay Ousmane Sonko amee démb ca Cour suprême gannaaw ba juge ba jëlee dogal ci mbir mi doxoon diggante Ousmane Sonko ak direction générale des élections di ba yéene kaay bi ne dafa gàntal recours Ousmane Sonko muy lu avocat yi Ousmane Sonko yi xaarutoon ndax lanu fa lay lépp leneen li taxoon ñu am yaakaar it mooy avocat général ba sax dafa àndoon ak Ousmane Sonko ne dañu ko xañ àqam ak yelleefam te direction général des élections dogal boobu mu jël jaaduwut libération it yeggee ñu taxawaayu parquet général booba faroon demb ca usman Sonko yéene kaay bi ne waaye te àttekat ba moom dafa gàntal càkkutee fi Ousmane Sonko ki avocat am lataa mu ko def nag les échos nee na jox na dëgg sax Ousmane Sonko waaye ca mujjantal ga mu daal di koy gàntalal la mu sàkk woon fa juge ba teg booba lépp dogal nag les échos ne lu yéeme la ndax ci yéenekaay bi attekat baa nga naan Ousmane Sonko ki awakaam indiwuñu lenn luy wone ne direction général des élections dogal ba mu jël wut moom attekat bi dogal bi mu jël awakaay Ousmane Sonko ci yor yor bi ña nga naan jaad teg tegwut fenn ajjuma gu lëndëm kuruus lañu yéenekaay bi di nettali demb ca cour suprême dogalu juge Abdoulaye Ndiaye booba ba mu wàccee maître Ciré Clédor Ly ma ngay nettali ca source aané ñoom awakaay Ousmane Sonko yëf ya teel la def seen kaw xamatunu fu nuy taxaw moom daa meloon ni sax ku gëlëm ba mu jee dem ca greffier ba naan ko juge bi moom lan la wax l'info naan wax ji wax ji Ousmane Sonko moom ñàkk na xeexu parrainage bi l'observateur gis ne cour suprême ci boppam moo lànk parrainé Ousmane Sonko Sonko mooma Walf Quotidien gis ne mi ngi gën di sori présidentielle bi gannaaw ba cour suprême gàntalee a ba mu fa yóbbu woon dem ngir kalaame direction générale des élections candidat la ci élection présidentielle bi ñu dëkkmal moom Mouhamed Boun Abdallah Dionne ci Dakar réew mi war a jiitu parti bi la patrie avant le parti it la wax yéene bi di Dakar Times ne ma ngi ko waxee ci waxtaan wu mu sekk ak Jeune Afrique moom premier ministre ba woon ma nga yi tontu ñi ko tuddee double bouton bu Macky Sall ci kaw Amadou Ba la bun Abdallah John mooma di dal ci biir yéene kaay bi di Vox Populi gaaruwaale ko nii ne moom gàñe na bépp élection boo xam ne moom la ñu ca jiitaloon te loola du ñépp ko def ci bés bi la jour nag Mouhamad bun Abdallah John làqatuwut nëbbatuwut ndax nee na adversaire am di ki muy defanteel Amadou Ba la tudd Sonko moom gannaaw bam ñàkkee xeex xeexu cour suprême bi yéenekaay bi di bés bi le nee na ma ngay déglu Ziguinchor ndax foofa itam kalaame ji nu fa seppi gi nu ko seppi ci liste électorale yi jàpp gi nu jàpp Aliou Sané l'info di ñu yëgal booba jamono ne F24 ak Y'en a marre fas yéene nan caa taxawee tànku xeex defante bi nanu ko nar a defee moom la yéenekaay bi xëy yeggeeñu yemoo réew mi quotidien dañu xamal ne junni ak ñaar téeméeri nit ñu bawoo Sénégal yegg na nanu ca Espagne ñetti fan yi yéenekaay bi ne na nanu fay teeree moo jaaxal sax waa Espagne ndax fi mu ne Îles Canaries moom antanatul ña fay bàbbeeku libération mel ni ku naan bàbbee ko wunu ndànk sax ndax démb kot juróom-ñetti gaal yu bawoo Sénégal teer nañu ca Espagne ak juróom-ñaar téeméer ak juróom-ñetti fukki nit bokk ca ñoom fukki soxna ak juróom-ñeent ak fanweeri mineur ak juróom-ñeent yéene kaay bi ne ñetti fan yi nu génn junni ak ñeenti téeméer ak juróom-benn fukk ak ñett ci ay nit teer nañu ca Espagne googa jamono jooja ca Grand Mbao benn gaz it explosé tina fa libération nu ubbi nañ ci enquête l'observateur moom xëy def enquête ci mbindaan yeeg ni nu leen di toroxale di leen tuumaal ba ci di leen fitnaal am kuy seede ca booba lépp yéene muy liggéeyal moom tam na ko sax dëmm liggéeykat yi ci goo ko xaati ñoom fas yéene wéyal seenub xeex gerew bi nu sumb yéene bi ne waaja guñu caa génn stade dikk ci liste bi Aliou génnee démb di waajal jongante b war a dox diggante Cameroun ak Sénégal yéene bi nemmeeku ca dellu sig Nampalys Noah ak Balotouré Aliou Cissé moom ci yéene bi ne danoo war a am taxawaay bu bees gannaaw sunu jël bi ñu jëlee ci sunu jongante ak Algérie jongante war a dox diggante Zos ak Ada Fass ci dimanche ji moo yitteel sunu lamb yéene kaay bi ne mooy choc bu njëkk ci saison bi beneen combat bi ñuy xaar ci saison bi di bi war a dox diggante am ak Modou Lo sunu làmb ne gaa yaa ngi cay baral jéego accélérer la cadence ca la ñu ne maanaam dolli cere dolli ñeex duñ ci dolli lenn fi la ñuy yem ba altine incha allah yenu leen ak jàmm. Société nationale d'électricité bu Sénégal Sénélec moo may seen revue de presse.